ربي بما يزرع الأذان قد فجاء بجاه هذا لمن لله قد لجاء asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën nekk ci biir réew mi ak ci bisim réew nuyu nañ leen ziar leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides euh, ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaanal ko it mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk yi ñu ngi fii ci Kaolack ci sorti bi tey lundi dëppoog le 24 janvier 2022 di bis boo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir euh, mu nga xam ne mooy xalif général des Mourides ni nga xam ne noonu la koy defee at mu ci wàccaayu ku màggal poroxaan gi di màggalu soxna jaara gi war a doon jeudi 10 février 2022 ca poroxaan loole nag sëñ bi ci jéego yooyu la nekk ba tax na mu fas ne dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di poroxaan at mu jot nag bu dem ca poroxaan day jaar fi nga xam ne moom moo di ci dëkkub euh, Kaolack ci biir euh, dëkk bi ci Kaolack euh, ngir amal fi ak ngan goo xamante ni dina fi def ay fan ngir fas yéene saafonteeg nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi waaye it euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di daayira yi maam jaare yi mën koy euh, ziyaare waaye it mu am fi ay fan euh, saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax Kaolack dëkk bu cosaanu la Kaolack dëkk boo xam ne la dëkkub diine la ndax ku kenn fàttewul Serigne Bassirou liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax ki nga xam ne moom moo di doomam ja muy Serigne Moussa moom Serigne Bassirou nga xam ne moom moo fi nekkoon ci pencum Serigne Bassirou liggéey fi liggéey bu am solo ànd koog mboolem njaboot gi tey ji euh, Serigne Cheikh nekk fa moom it ànd ak njaboot gi di ci def liggéey bu am solo kon euh, loole ci wàccaay woow lañ nekk ñu nekk fi nag ci sortie bi nekk fekk Serigne Babacar Mbacke moom Serigne Moussa ñu gën koo xam ci Serigne Babacar euh, mu kabaro ànd ak mboolem taalibe yi ak yeneen kilifa yi ci njiital ki nga xam ne moom moo di El Hadji Seyni Seck nga xam ne moom moo nekkal xalifu général des fii ci diwaanu Kaolack lépp rek ngir euh, tertu gi ngir waajal euh, ñëwug sëriñ bi fii nii ci Kaolack ngir def ko ñëw goo xamante ni daañu xam ne bu baax a baax a baax Kaolack am nañ gan tey it dëkk la boo xam ne dëkk bu euh, mën gan lañ kon mbokk yi incha allah fii lañ fas yéene ànd ak sëriñ bi bu agsee ñu ànd ak moom ak ni nga xam ne noonu lañ koy tertoo ñu fas dem ci péncum sëriñ Basiiru ca kër gi nga xam ne sëriñ bi fa la fas yéene nekk ci diirub fan yi nga xam ne moom la fas yéene am ci doon Kaolack kon mbokk yi ñu ak yéen ci convoi bi bismillah fii niin ak daala yàllaaw sawi baqa bi fiq yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lawo wasi wa ma lil waad li fiq yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي الدر منك يا الله عزاري ملاسي أرجو برحمتي الله لا يضر منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله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 xabitu sirran ilal jamaati yàllaaw anta al laasi aqib bi isati isan yuqal li dulit takrim yàllaaw أجبرت لي إماك الجبار دون لقم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 أتى المصور قلب للنبي بسارا وصورا ليادو المكر يا الله خلقت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا رب يا الله خلقت لي كل سن بالغاد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 فلا كسب ريايا وأبح اللام لغوت أزمان اللج يا ملو أموره وغوت لي رصايا رساخ يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذات لأوليائك يا الفتاة يا الله ألم تنل قيباء تعفت منتميئا أتى الأليم لاسي ألمت يا الله خبرت يا قابل أسراء وانصرفت لخير نبيك الأدار يا الله بزار باسط الأعمال لي بريدا فاذكر مباسطة دارين يا الله بسطت يا باسط الأعمال لي بريدا فاذكر مباسطة دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقصد منك يا الله رضاك يا رافع الدار مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رضاك الكون مرتباته بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتباته بلا انقطاع بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي لا سبت إيه خلال انسان واحد بل فيك يا علام عسى المسل لاسي سلا ليستي الانس والجن سيطان يا علام انت سميع لاسي ناجيت سمانا وبالمصارات لي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 آية خمرته وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله عثر الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لغير دهر يا الله عثر الأليم لاسي بان دسامته لخوت فلن أزي من منك يا الله أظهر لاسي لقد مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أظهر لاسي كلي لديك ريدا ولي سكر تجمي asa ya allah alali yulasi ahlaytani abadan بخير مكر ولم عللت يا الله الله الكبير لاسي بانت كبارته lii xutta min ka kabbi alal ajri yàllaaw antal kabiru la si baana ka baara tuwo li xutta min ka kabbi alal ajri yàllaaw antal asiisu la si wajaata fi abadin والضر يا الله أنت المقيت الذي خلقت لي رقادا بلا إصاب إلا الجنات يا الله أنت الأسيب الذي قد اكتفيت waaye lépp nañ ko tënk xam ne lépp lépp tawfeex sëriñ Basiru ju mu am ci sëriñ bi ak xaas ju mu ci boole moom moom moom rek la lii de lii mooy moo ko feeñal maanaam mooy mandarga bi ñu ko mën a xamee noonu noonu lii mooy mandarga mi ñu mën a xamee eh, dëgg dëgg tawfeex ji sëñ Basiru am ci suuf bi ak xaas ji mu ci am loolu rek la waaw <laughs> ah, nu xaar loolu nag tawfeex ji ak xaas ngi ci biir <laughs> sant nañu bu baax a baax sant gi sant gi moom amul amul fenn fu mu yem lu dul ca ca ca kanam borom la bi يا الله أنت الحكيم الذي أبلغتني لسوى عزائلي وما أو تسوء يا الله